dikkati naa àndandoo jeyante tàggoo jëwante mbaadu lii nag moo fees ci réewum senegal turbine yéen a ko déet naxee mbaay kay moo am ci réewum senegal yéen a kaay bi dee média bi naan joxante loxo diggante Amadou Ba ak président Macky Sall lii bu dul naxe ma ni la lan la ni ki dem ba jébbaloon tiimee ni tulleeg male yaa ma doy doxalal ànd naa ci sab dàq maa ngeeg yow duma ci daw yotaa lii bu dul naxante turbine yéen a kaay naan Sénégal kaay leen atte ñu lépp li fi ci réewum Sénégal fan ak njuuma luy jommalaate lumu lépp nag tënku ci dàquk élection présidentielle yoo xam ne Sénégal ña ngay xool lan moo ko waral Sud Quotidien naan kon déet bul wax agum dàq élection présidentielle ndax fi mu toll nii nag mbir maa nga des ca set sage ñoo yor seen cëggal guy ñooy wax ndax daq gi dëggu na ci réew mi am déet tribune yéen a kaay naan koon en attendant les événements lañ doon xaar amul diggante président Macky Sall ak Amadou Ba di premier ministre am tàgganti koog mbagg ga xam ni gars yi sóoroon nañ ko ni ki démb amul joxante nañ loxo delloonte ay confiance li am ci réew mi kan mooy bëyub sarax bi nag léegi xanaa du conseil constitutionnel lañ fi jiiñoon ak ger kan jiiñoon ne moo leen ger anamu fu mu toogee ni ki démb lu muy def ci réew mi waaye wax ji wax ji critique yéen a kaay nan man ana preuve ya preuve yu wane ni mani la ger am na ba tax nag ñu daal di dàq élection présidentielle bi xanaa nag dàqunu ko ci waxi kese dàqunu ko ci kàddu yoo xam ne amul génn firnde goo xam ne am na ko jëluñu ay gor daal di leen di tuumaal taxal leen ger goo ne mën na leen suuxal suuxal seeni njaboot ci loo xam ne gisuñu preuve wonuñu ko ci ñoo xam ne nag ña ko doon jiñante ña ngay joxante loxo moom critique naan man coow li mooy nañu wër logique ba way logique ba ci dàqub élection présidentielle bii moo jaralaaj laaj le soleil yéene kaay naan kon en tout cas président Macky Sall moom xam ne na ni élection présidentielle gii ñu jëm ci weeru décembre moom Sall bokkul leer na daal dinay dëggalaat confiance am ci premier ministre Amadou Ba moom président Macky Sall daal dina dinaa def sama kéemtalaay kàttan ba ubbi ay yoon ngir waxtaan daal di am laas kaay naan kon Sall kay nee na fi mu toll nii dialogue la ma nga naan ay gaayam def leen kéemtalaay kàttan ba dialogue daal di am ci réew mi ko di quotidien naan koon cey dialogue ba bàjjo ba cey dialogue ba ku ca wuy ji bàjjo ba l'enquête sampal kob laaj ne ko président Macky sàll yow kan mooy wuy ji sab dialogue boobee cey ku wuy ji l'enquête naan man dama kan moo nar a wuy ji sax ku wuy ji daal yàgg président makki Sall laak askan wi yéen kaay bi naan man Sall daal fi mu tol nii ma ngay teggati ay plan nekkati ci ay manœuvre lan la président Macky Sall fasal yéene réew mi mbaa nag génnee foo xam ne xaaruñ ko fa moom Sall daal di démissionné keroog ñaari fan ci weeru avril bés bi le jour naan kon en tout cas mi ngi woote jàmm ak dal ci réew mi moom président ko ni kiy fa mu toogoon jógu fa ci fukki fan juróom ci weeru décembre yéene kaay bi naan man daal di premier ministre bi Amadou Ba ne seen diggante kom mburoog soow wax na ci dialogue national bi nga xam ne bëgg na daar daar mu daal di am président Macky Sall daal di xam le ni détenu politique yi moom nañ leen gaaw génnee ci kaso bi laaj ba samp nag te bés moo di ëllëgu Ousmane Sonko ci réewum Sénégal lan lay doon libération yéene kaay ni réewum Sénégal jàmm lañ fi woote ak dal waaye nguuram gii ña ngay wéy di jàpp ay ñooñu Ousmane Sonko Mohamed Diop jàpp nañ ko Binta Ndiaye Gueye jàpp nañ ko Cheikh Dembélé jàpp nañ ko Fatoumata Ba jàpp nañ ko te ñii ñëpp nag ci réseaux sociaux yi la ñu nekkoon di wax daal dinañ leen di jàpp nag ndax seen kàddu ci réseaux sociaux yi su président Macky Sall nee jàmm ak dal la bëgg ci réew mi ak jitu ñuy dem ñibbi seeni kër waxtu woowu ñuy jàpp ay xale yoo xam ne ci réseaux sociaux yi képp kott la ñu nekk problème day daal di judd ci réew mi le quotidien le quotidien naan kon geneen problème a ngi nii de gu gën a diis mooy club bu yees bu opposition bi candidat yi nga xam ne ñoo bokk ci élection présidentielle bi ñoo ko daal di taxawal l'info yéen kaay naan kon yooyu candidat day amul lu ñu bàyyil président Macky Sall Aliou Mamadou Dia bu pur naan kon yow président Macky Sall gardien bu constitution day la Sénégal daal di fal nga daal di taxaw nag wan àdduna wërngal këpp ne leen yow gardien bu confusion nga yow Sall ngaari lam tooro Bourguédé maam booy jaawoo naan kon situation bii nga xam ne Sénégal ma ngi koy dund daanaka ab saaga la la goo àdduna wërngal këpp ña ngi ñuy tex-tex may ree fépp ñépp ngay reetaan Sénégal nga xam ne nag wàlluk démocratie daf koo yitteeloon l'info yéene kaay naan maan Cheikh Tidiane Dièye ma ngay xamle ni moom président Macky sal day waat ga mu waatoon ci kanamu askan wi daf koo bàyyi ginnaaw jéggi koo def la ko saf Cheikh Tidiane Dièye naan kon maa ngi joxoñ Sall naan kon dangaa war askanuk réewum Sénégal moom Déthié Fall naan kon bi yoon bu njëkk ci taarixu réewum Sénégal ab président nelaw ba yeewu jëlub styloom naan dàq naa élection présidentielle bi dootul am mënu leen ci lenn décce naan kon déet nous disons non duñ ko nangu tey te duñ ko nangu ëllëg Aly Ngouille Ndiaye naan kon gannaaw discours am waroon def moom Sall te askan wi mënoon ca ànd moom moom moo di daal di seyal gi dem ci élection boo xam ni candidat du ca bokk Thierno Alassane Sall naan président Macky Sall dafa mel ni nag ko fan waaye nag ñamu àndal ci nërmeelu constitution bu réewum Sénégal gi wéet nañ vox populi naan man a gaawee ci réew mi mi nga xam ne mooy ministre français de l'Europe ak affaires étrangères ma nga naan dàq élection gi ñu dàq ko ci réewum Sénégal ci diiru fukki weer daanaka boole ci yokk yokku mandat président bi daal nay dugal Sénégal ci ëllëg goo xam ni bër setagu fa l'observateur naan man moom président Macky Sall day woote nag waxtaan naan leen sama responsabilité laa jël ci mbir mi def naa ko jeex na naan ay gaayam ci leen ci mbedd mi défendre leen it seenub candidat critique yéene kaay naan maan ak lu a am Moussa Sow bu ko gère ma nga ca ma naan président Macky Sall la mu def nii defu ko nag lu dul ci sabab daal di protéger projet Sénégal daal di ko yiir ba benn gaañ-gaañ du am ci réew mi daal dinay jël ay responsabilité am ci mbir mi fexe nag ba kaawo du am ci réewum Sénégal ak suux moom président Macky Sall soowee na république bi waaye itam soowee banqaas yi nga xam ne ñoo téye sunu république ba du daal di nërmeelu Moussa di rafetlu dogalu président Sall mi waaye itam di xam le ni daadu doonu say jaamaarloog opposition bi nga xam ne nag ñooy jor xeer président Macky Sall waaye itam ñuy doxali ay ennemis république bi moom coordonnateur bu COJER bi ni li amoon ci réewum Sénégal du ñu nangu mu amati Walf ko dajee naan man naan Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Niass xalif bu leew na ñeseen day ma nga naan président Macky Sall lenn moo la fi dese mooy daal di abal Sénégal seenu réew ndax nag sa nguur ci boppam moo daal di jeex askan wi ci boppam ñoo bëggatul bile nguur talal leen tribune yéen a kaay naan kon sikundik sikundik dina jommal na la fi mu toll nii nag moom njuumali dafa amuk awokaate Moussa Bokar Thiam la tudd weeruk juin 2023 tëj nañ fi fan weeri fan wal fajri Moussa Bokar Thiam moo daal di xaatim loolee nga xam ne tëjlu na wal fajri ay weer ñu daal di ko ciy teg sentence définitivement bu wal fajri nga xam ne nag wal fu dootul tàkkati bile erreur erreur mënu koo gën a rëy ci réew mi waxtu wa nga xam ne ña ngay wax liberté de la presse waxtu woowee la ñu daal di jël ab télévision fii ci réewum Sénégal ci 2024 daal di koy tëj ne ko yow doo tàkkati yéen dootu leen wax te dara waralu ko lu dul ab ministre de la république boo xam ne bëggu lu dul tëggali tamarong tondong nga nga xam ne mooy buuram te moo ne day mënoon naa rafet wal fajri sab doom la sa njaboot mënoon nga koo boot rogganti ko te bañ koo dompat kaata këlbatal tax nag daal di jël sab njaboot boot ba nuppi dem ba tiimuk dex daal di koy sànni bu dul yëfu njuuma yéene kaay bi naan maan lu mu turbine yéene kaay naan kon réew mi lu mu jax-jax jàpp leen ni am na ñoo xam ne nag ñi ngi fas yéene joyanti association nationale bu mareyeur bu réewum Sénégal daal dina ñuy tàggat ñeenti téeméer ñeent fukk ak juróom ci ay doomu adama sabab gi nag du lenn lu dul daal di xeex màngaan gi nga xam ne tegunu ko ci yoon buñ sukkandikoo ci Thierno Mbeng mi nga xam ne moo jiite association bi lu toll ci juróom ñeenti ci ay doomu aadama tàggat nañ leen ñeenti téeméeri ay soxna lañu ñu daal di tàggat ci transformation bu produit halieutique juróomi téeméer ya muy ñaareelu pàcc ba ñu tàggat leen ci entretien yu bato yi waaye tam maintenance d'usine yi Thierno naan tàggat gii dina tax ba ndaw yi xam ni gaali kese du solution am na yeneen saafara yoo xam ne mi ngi ci réew mi te bu buñ fi toogee mënees na koo jël ni ki liggéey Tribune Sport naan kon jëfi Côte d'Ivoire yóbbu na ko final finalu kan bi nag diggante Côte d'Ivoire ak Nigéria lay doon ak lu mën a am mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog